leen nuyu ku nekk turam ak santam euh, ñu nag mouvement jigéenu Touba ñu koy wax MOJIP euh, dañoo ñëwoon tey ànd ak waa commission sociale bi dirigé par Ndeye Anta Bousso moo si jiitu Ndeye Anta Bousso euh, ñu ne woon nag dañuy def ay dons de moustiquaire ak ay eau ñu yóbbu ko si sëriñu daara yi ci ñi nekk ci Touba di ci ëpp sëriñu daara ñu yóbbu fa jox leen ko Euh, comme que ñu si loolu la ñuy dox en tant que jigéen euh, ci di dimbali suñ suñ suñ dëkkandoo yi nekk Touba euh, comme que si social la ñuy dox nag ñu ne woon ñan ko njëkk sëriñu daara yi donte di foofu rek lañ ko yemale plan dans tous les plans dañ koy def si yeneen suñu yaay yi ñu nekk si marché yi ñi nekk si hôpitaux yi partout nekk si Touba yëpp daal mën nañu suñu yittewoo ko rek ñoo ngi fay dem di def social bi léegi tey ñu ne woon nag nañ ñëw def ko commencé ko fii Euh, juste après élection législative yi euh, kii biñ ba njëkk a def génn bi njëkk a def ñu ne nañ dem nag euh, comme que def na ay collecte de moustiquaire ak ay eau de javel ñu ne wala léegi nañ dem nag jébal ko seeni daara yi yi bokku nag si Pastef Touba jiite ko ñu séddale ko ñëpp rek ku ci mën a am ñu gën koo yaatal rek waaw suñu jiitu Ndeye Anta Bousso nag ñu jigéen ñi Touba yëpp nag am ci contentement ànd moom tey délégation bi yëpp ñoom la ànd pour tey ñëw. jox leen ko waa kay ngeen jëf. aleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mountakha Cheikh seexal Bachir di ñaan mu yàgg fi te wér di nuyu suñu coordinateur sëñ Cheikh Thioro Mbacke honorable député di nuyu suñu coordinatrice soxna Fatma Mbodj honorable député di nuyu mbooloo mi ma àndal yëpp délégation bi soxna Aji Mbacke mi ngi ci soxna Aji Seck mi ngi ci. soxna maam Jaara Kanji soxna Jaal Yaasin soxna Anta Mbay sama adjoint ak soxna Xadi Baabu yor communication bi tey dañu ñëwoon seet si kuréelu sëriñ daara yi indil leen ay edd yoo xam ne dafa jëm ci daara yi ku wax edd ak daara ak fii tuubaa tollu sa xel dina dem ci ndox mu bari mi ak yooyu fi nekk moo taxoon tey ñu jëloon ay moustiquaire ak eau de javel indi woon ko teg ko ci seen loxo ñoom dinañ xool nu mu gën a rafet ak nu mu gën a jaaroo ñu defe ko noonu loolu moo waraloon suñu dikk bi nii tey di sant nag sëriñ daara yi bu baax a baax di leen wax ne liggéey bi ñu mës a liggéey bee ñu ci dàqal ndax lu tax dañ koo séq ak ñooñ alxuraan te alxuraan ku ne xam na dooleem ak dayoom kon yéen sëriñ daara yi yéen ñooñ alxuraan ñi ngi leen di ñaan ngeen ñaanal ñu ñaanal ñu suñu leader président Ousmane Sonko lépp lu ko nar a yàqal lu ko nar a fakkastal 2024 ba du nekk candidat ba li mébét ci réew mu def ko ñu ngi leen di ñaan ngeen ñaan ci barke alxuraanul karim loolu bañ a am te loolu yàlla na ko suñu borom def ñu ngi leen koy ñaan ci barke weeru tedd wii di weeru safar ku ne xam ne li Cheikhul Khadim liggéey ba am ko ci safar gii kon loolu tamit yàlla na barke bi wàcc suñ kaw loolu daal moo nekkoon suñ jotaayu tey jii moo ñu indi woon tamit tey jii daara ji nii ñu indi woon ko ànd ak délégation bu am solo bi salaamaaleykum wa rahmatullah noo ngi leen di ziar leen sargal ci weeru tedd wi di weeru safar e, di nuyu Cheikh Mouhamadou taxaar di ko ziar ak mboolem njabootu Serigne Touba gépp di ziar mbokki taalib bi yëpp ndax dañoo dugg ci weeru tedd woo xam ne muy weeru safar di weer suñu sëriñ fonkoon suñu kilifa ndox lu mu am ci la ko amee mu delloo ci njukkal boromam woonu ci ñun ñëpp ñu àndandoo di ko ci delloo la njukkal borom te borom bi ku ne xam nga ne yelloo na fu mu toll di ko delloo njukkal ko alhamdulilah rabil alamin kàddu cant la ci lu yaatu waaye mu dëppoog bésub tey bi itam fee ca kër Sëñ Tuubaa ñu jóge fa wa euh, njàngum alxuraan am fa ba xamante ne final ba tey la woon raay yu bari wàcc kon bu dëppoog waa commission sociale bu mouvement jigéenu Pastef Touba ci asaka yi seen ndax ku ne xam nga ne Euh, njàngalem raxuraan kenn mënu koo fay sa doom ki nga ko jox ba mu def ci moom kàddu suñu borom gi mënoo koo fay waaye nag loo ca mën a jàppe ci aska yéene loole euh, day doon loo xamante ne ni ñu ñaan yàlla fulal ñu ko rek te ñoom ñu ñaanal ñu comme ni ko Ndente waxee euh, ci mbaax ci mbaaxu yàlla lépp luñ fi def ren yàlla nañ ko mën déwén ndax ci loolu rek ñuy yëngu ndax Ousmane Sonko mi nga xam ne mooy suñu leader te noo ngi ñaan yàlla sàmm ko sàmm ñu ñaan ak moom ñëpp ci tànk yooyu lañ gis muy dox moo tax ñu nangoo ànd ak moom ndax képp koo xam ne dañuy ànd ak yow ci politique te nga soree la nu lépp loo xam ne dafa jëm ci diine duñ ànd ak yow ndax ñun politique dañoo jàpp ne benn pàcc la ci jaamu yàlla ci boo ko doxalee na nga ko war a doxalee lii commission sociale bu mouvement jigéenu Pastef def na yàgg na noo taxawee taxawaayu mel nii ndax ci euh, doole amuñu ko ndax opposition lañ nekk waaye sunu asaka yéene yàgg na noo dajale di def lu baax lu jëm ci yu mel nii kon lii buñ ko defee du ne buleet euh, dan koy rafetlu ndeyante bu soom tam di ko sawar ci dox ci loolu ak mboolem délégation bi nga xam ne lim na ko léegi ñu ànd ak moom di commission sociale bi te ñoom ñëpp képp koo xam ne woo na la ca yéen a jë gaaw nga gaaw def ci sa doole dagg sa yitte ñëw teewe ko kon loolu mooy pësteef te loolu tamit ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm tey woo ñëpp ñu xool ci lii kon du defun lu dul sant ngërëm sëriñ yi euh, ñu ngi leen di sant bu baax yéen itam yéen ñi bokkal liggéey bi ndax it tax ngeen ñu gën a ñeme ci luñ ne ndax euh, wane ngeen ne liñ ne Euh, mooy li ma wax léegi rek lépp loo xam ne dalay sore léegi diine ak dëgg yéen du ngeen ca nekk kon ñun ñi itam loola ñeme nañ ne kon liñ ne nekku sorelewul ak loola kon ñoo ngi sant bu baax di leen gërëm ndax euh, assemblée nationale moom dañoo yàq melokaanu député ci jamono yi ñu weesu waaye député moom askan wi la fa war a nekkal askan nag génnewoo ci sëriñu daara génnewoo ci ke génnewoo ci kenn ñëpp ci lañ bokk rawatina nag diine ji ndax sëriñu daara damay wax ne bu njëkk liñ ko teg dafa metti ndax boo jëlee sa doom ne ko ay xam laa la laaj te dara fekku la ca du ndimbal du dara bàyyi ko ga loolu diis na kon ñooñu lañ war a njëkk jiital ci lépp lu ñuy def ci social loolu ñooñu lañ war a njëkk jox gëdd ci réew mi te dafa mel ne ñooñu lañ gën a ginnaawal ci jàngalekat yi ndax ñeneen yoon njàngum nasaraan naam jaar nañ ci waaye fi ne ñooy seeni syndicat organisé wu ba nga xam ne lépp loo xam ne yëngal nañ ko ci seen àq ak seen yelleef donte ñi ngi jot salaire ak yëpp waaye lu ñu leen dig defuñu ko rek sax ñëpp dégg leen ci ay te da gis ne négociation da ci dal dem état bi wisi leen tey jii rek bu a jaaru ci yoon bañ dóor ko nga xam ne ku ne xam nga ne njàng am na dóor ndax école française noonu la amee dóor itam waaye da ngay gis ñu marginaliser ko wax ci wax juree joo xam ne sëriñu daara ba def na nii te xale ngay jàng ci école ba ñu 4 4 ko tendre par 4 te loolu doo ko dégg kon loolu bokk na ci li nga xam ne bu ngeen seetloo mbirum Pastef bokk na ci li ñuy xee àq ak yelleefi sëriñu daara nañ leen delloo seen place ndax fii ku fi takkub sëy wala ngay tudd doom sëriñu daara la ko jàngal ba nga mën ko imam bu fi jiite julli sëriñu daara la def ba nga mën loola ndax ku loo jàngu ko tari kon sëriñu daara yi nañ leen tegaat seen place nga ne diine jiitu lépp première législation ci législation ci àdduna ak àllaaxira lay jariñ alxuraan la man jànguma baqara ba naasi ma ko waaye nag yàlla dimbal na ma féer i jiba ma ci bëgg a jàng diggante baqara ak baqara ba naasi mën naa ko loolee nag boo ko gëstoo ba même ki ko jàngu sa bu gëstoo français bi dana xam ne législation àdduna ak àllaaxira gën jëm lépp a ngi tënku ci alxuraan kon nit alxuraan yooyu nañ leen delloowaat seen gëdd nañ leen delloowaat seen place. ji bisimilahi rahmaani rahim rabbi sarax li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullah sama mbokk yi ma fi fekk ak mbokki sëriñ daara yi maa ngi leen di nuyu nuyoo bu gën a sell di nuyoo bu lislaam muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di am mbégte lool ak kontaante di nuyu nag suñu honorable député di nuyu soxna Ndeye Anta Bousso mi jiite sociale bi ak suñu naataangoo yi fi teew ñëpp te bokk Pastef ñuy jigéen ñi Pastef di jigéen ñu am jom di jigéen ñu bëgg li ñuy def nekk ay patriotes yoo xam ne nii dawuñu benn yoon guddi na wala naañ na tàng na wala sedd na toujours ñoo ngi daw ci terrain bi di ñu ñaanal nag suñu président la Ousmane Sonko président Ousmane Sonko yàlla sàmb ko aar ko yiir ko ba ñu egg 2024 ñu gunge ko ba dugal ko pale loolu la ñuy ñaan suñu boroom yàlla nañ ko yàlla defal di siyaare sëriñ daara yi ma fekk di leen dollee siyaar di wax ne nag ñu ndaye daara lañu kon bi ñu dugalee tey ci social bi dañuy sant yàlla bu baax a baax di julli ci yonent bi di kontaan lool nag ci première sortie bii ñu xam ne moom lañu jëkk a def bi élection législative yi jàllee ak léegi yaakaar naa ni euh, sortie bii moom de ciy doon boo xam ne spécial da ciy doon ndax sortie boo xam ne dañ koo jóg jëmale ko ci sëriñ daara yi ak alxuraanul karim pour jàppale dongay daara yi yaakaar naa ne loolu am na solo lool ñu nag dañuy yëngatu ci daara yi kon xam nañ li ne ci daara yi ndax xam nañ sëriñ daara yi jafe-jafe yi ñuy dund kon buñ leen indilee social bi muy saabu eau de ak 1000 dents yi ñu leen indil yaakaar naa ni eh, ñun loolu du gan ci ñun ndax dongay daara yi ñu ñu war a taxaw lañu man à chaque fois damay wax ni ñun ndeyi daara yi dañoo war a gën a yaatal ndax nag sunu doom yi ñoo nekk ci daara yi ni ko soxna maam Fatma Mbooj waxee léegi rek maa subaana laa ku fi jóge alxuraan lay moo lay gunge bu liir juddoo alxuraan a koy yiir kuy takki soxna alxuraan lañ fay lañ fay jibal kon alxuraan yaakaar naa ne dara gën koo màgg kenn amul lu ko ëppi tamit kon tey ji bu ñu indee fii liñ fi indi muy suñu asaka yéene fas yéene nag suñu yoon wi nuy dox ñu fas yéene di ko dox nag ba ilaa yow mi diin di ñaan yàlla sama borom dimbale ñu ci te jàppale ñu ci maa ngi siyaare ñëpp nag di sant ñëpp cheytaan rajim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli su ko defee kon ñu ngi nuyu mbokk yi nga xam ne ñoom la dajal ci jataay bi rawatina suñu mbokki jigéen yi nga xam ne nekk nañ fi euh, di jigéenu Pastef Mujib ñu leen di dalal ak jàmm di leen siyaara bu baax a baax di nuyu tamit sëriñ daar yi nga xam ne daje nañ fi itam bis bi nag nekk bisu mbégte ci ñun muy lu ko waral mooy bu ñu demee ba waa Pastef jóg ne dañuy jóg jàppale ci daara donte yàggoon naa nekk bëgg-bëgg bi waaye xaj na ku nekk opposant moom doole ji day des waaye yëg gëñ yëg ci ñoom ne boole nañu ci seen biir rek loola rek lu rëy rëy la kon nag euh, ñu ngi leen di sant ci ndimbal li nga xam ne itam indi nañ ko pour séddale ko daara mu nekk loo xam ne loo am solo la te ndimbal nag du tuuti ndax dañoo boole ñaar mooy yëkkati seen ñaq def ci ba pare perte seen temps tamit dugal ci waaye bu ma nee perte seen temps mooy bàyyi nañ dara def dara waaye ku jëm ci lu baax moom jéego yooyu ca mën a dox it jéegoy dem yaag jéegoy wàññeeku yee yëpp tuyaaba la kon du pertement waaye maanaam nit koo gis mu def dara rek daa bàyyi dara kon loolu itam du rëy la ci ñun ñu ngi leen ciy sant bu baax a baax di ñaan tamit itam ànd bii nga xam ne ànd nañ ko itam ñi ngi ñaan suñ borom mu bàyyi ñu fi ba 2024 ci kàttanu suñ borom Ousmane Sonko président Ousmane Sonko jël réew mi réew mi tege ci yoon ba yéen ji nga xam ne waa Pastef am nañ ko ci daara yëg seen bopp ci biir réew mi. su boobaa mu mën a doxal yéene joojee tey itam lu mën a nekk la waaye ñun itam fi ñu tegoon suñ tànk itam buñ ko teggi benn yoon ndax bu njëkk dañ daan wax ne sëriñ daara daa war a toog ci daaraam bu yoonam nekk ci réew mi looloo tax réew mi yàqu ndax ñi xam buñ toogee ne suñ yoon néewu ca rek day dem ba mujj ña xamul ñooy mujj jël mbir ma kon nag euh, buñ demee tey ba sëriñ daara jóg ne dañuy dañuy politique te ñu bari xaj na amoon nañ ci complexe loolu mës a am الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ñu ngi nuyu ñi fi ñëpp di ci sëñ daara yi gannaaw ba ñu nuyoo alxalifatul aam Cheikh Mouhamadul Muntaqa di rafetlu ak am mbégte mu rey ci jataay bu am solo bii nga xam ne jigéen ñi Pastef Touba ñoo ñëw seet si tey sëriñ daara yi ngir indi leen don bu am solo muy lu jëm ci wàllu sanke ak eau de javel ku ne xam ne loolu mooy jëmmi set ak aaru bu ñu nee set moom mooy njëlbeenu aaru nit ku bëggee aaru rek yaramam day njëkk a set ba pare nag doore a jël lu ko wër ngir yooyu nga xam ne dafay joxe tawat du egsi ci moom. kon ñoom ñi nga xam ne am nañu initiative bu rafet boobu di ay jigéen yu am taxawaay na ci biir parti bi ku nga xam ne ne jigéen ci lu mu bokk doole jami am bokkut ak bu ca bokkut rawatina jigéen ñu mel nii ànd ak honorable député. ah soxna Fatma Mbodj ki leen jiite jiite social bi mooy soxna Ndeye Anta Bousso ñoom soxna Aji Mbacke ak ñi nga xam ñoo ñoom ñëpp ñëw seet si tey sëriñ daara yi nga xamante ni si ñoo am taxawaay bu rëy am yéene ak bëgg-bëgg bu am solo te kawe lool asalaamaaleykum ñoo ngi nuyu mbokk yi teew ci jotaay bi yëpp di leen ndokkeel ci jotaay bu màgg bi nga xam ne sunu gan yu tedd yi tey ñëw nañ fi seet si sëriñ yi nga xam ne ñoo nekk ci gox bii di Touba. Eh, muy mbooloo moo xam ne dañoo bokk ci kuréel bi ñuy wax Pastef eh, ñu ràññee fa nag ñenn ci ñoom ñoo xam ne ñoom ñoo jiite commission bi nga xam ne moom mooy wàllu social muy soxna Ndeye Bousso ñu ngi koy nuyu bu baax ak mboolem ñi mu àndal ñépp ci ay jigéen di nuyu bu baax ci ki ñuy wax honorable député soxna Fatma Mbodj di am mbégte lool ci jéego yi ngeen séq ba ñëw fii fekk fi lenn sëñ daara yi nga xam ñoo nekk ci biir dëkk bi ngir indi euh, ay don yoo xam ne ñu ngi jëm ci wàllu daara ci wàllu ay sànke ak madaar ak yenn yi ko nuru yëpp ngir jàppale ko ñooñ daara rafet lu baax a baax a baax seen taxawaay bi nga xam ne def ngeen ko ndax jëme ngeen ko fu am solo foo xam ne ku fa mës a jëmee sa wàll rek ni ko suñ borom waxee inna la nudiyu ajral muslihin mm-hmm. ñi def lu rafet seen jëf du sànku kon bëgg-bëgg bi ngeen am ma tax ngeen jóg seq seenu jéego dem ci daara ak ñooñ daara ngir dimbali leen yàlla na yàlla barkeel seenum dund waaye yàlla na yàlla sottal seeni mébét te yokk seeni taxawaay te may leen man-man bu yaatu boo xam na ngeen mën a yaatal daj lu bëree bëri ci biir dëkk bi ndax am na bëgg-bëgg yu ngeen am bëgg-bëgg yooyu nag mboolem yéen ñi ci ànd ñëpp yal yàlla sottal bëgg-bëgg yooyu waaye waa daara am nañu mbégte lool ñun nag ñenn lañ ci ñoñ daara ñu nekk ci biir dëkk bi danañ solo sunu dàll mboolem liñ fi indi lépp ñu bokk ak ñoom jox leen ko ba fa mu yem séddale ko insha allahu taala di rafetlu bu baax a baax tax taxawaay bii di leen ñaanal borom bi subhanahu wa moom may leen dem may leen barke li ngeen sumb lépp ak li ngeen yéene lépp yàlla may leen ci lu kaw seen njort suñ daara yi fi teew ci jaraay bi yëpp seen xol sedd na lool ndax kat lii ngeen def nii dafa rafet lool dafa am solo trop te nañ ko nag ndax jamono da ko laaj fi ñu toll mooy nawet bi dañuy soxla sànq dañuy soxla ordinateur dañuy soxla madaar dañuy soxla saabu ak yeneen yi ko nur yëpp waaye nag lii ngeen def nii gëm nañ ni ne incha allahu taala fi ngeen dal di ko def dàq ko fa yàlla mën na ko barkeel ndax ñooñu yàlla moom moo yor seen i mbir te moo yëkkati seen i mbir borom bi dafa wax ne inna allazina yatluuna kitaaba allahi wa aqaamu salaata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaaniya wa yarjuuna tijaaratan lan tabuur li yuwaffiyahum ujurahum wa yazida min fadli innahu ghafurun shakur suñ borom mu ne ñi nga xam ne ñoom dañoo téye ci téere bi loolu mooy sëñ daara yi ak ñi koy jàngale ak ñi ko ëmb ñay taxawal julli mooy mboolem julli ñi yëpp ñi nga xam ne ñooy te passé alal ci yoon yàlla ci lu nëbb ak lu feeñ lii nii lenn la ca lenn la ci seen i jéego loolu yàlla nee na du sànq seen jëf ji rafet jooju yal na yàlla barkeel ko te yokk seen taxawaay am nañ mbégte lool leen gërëm leen délégation bi fi teew sunu xol sedd na ci ñu fi nekk ñëpp euh, ci njiital sunu euh, kilifa Abdou Khadim mi nga xam ne sëñ daara la teew ci taay bi ak mboolem ñu fi nekk ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. lancé benn appel benn don de sang bu ñu war a def incha allah le 9 ci kër sëñ Fallou bi ndax ku wax màggal wax jëye yi oto def jëye yi oto def nag ñi ngi ñaan dara bañ ci am mais ñun waa jigéeni Pastef lu mu doon dañ koy gàttanu balaa egsi moo tax ñu bëgg a def benn doo de sang le 9 di ko defee ci biir kër sëñ Fallou ak waa hôpitalu Ndamaatu loolu tamit dama doon lancé wàllu appel bi pour waxaale ko incha allah di leen ci invité yéen ñëpp nag di ci invité tamit sëñ daara yi pour ñu ñëw ca bu ñu ko fekkee jàmm incha allah le 9 ci biir kër sëñ Fallou lañ koy defee incha allah.